Irak waaw salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal ah boobu ba tey maa ngi bëgg a wax ci lii may waaj a wax nii wax ji du bari day gàtt ba ba tey maa ngi ciy waaj a wax mais sama ngénte lee taxoon di sant sénégalais yëpp di leen siyaar di leen bégee ci kaw ba ci suuf waa ngi ñaanal ñëpp jàmm ndax gis naa ni ngeen jàppee sama bis bi mais ci li ma bëgg a wax mooy ñooñu di dóor nit ñi ñu naan leen xaw ma nervi lañ xaw ma ay garde corps lañ xaw ma lan lañ ñooñu di jàpp doomu jàmbur ji leen dóor nañ arrêté bàyyi ñiy dóor dóore dof rek a koy def dóore nit ku xamul boppam rek moo koy def dóore nit ku amul valeur moo koy def ñi ngeen di dóor xamoo ay papay jàmbur lañ ak ay yaay jàmbur ak ay rakku jàmbur ay magu jàmbur te ku dóoroon seen papa wala seen yaay wala seen mag wala seen rakk du la neex bàyyi leen ñi ngeen di dóor kenn santu leen dóor mun ngaa encadrer sa nit garder sa nit jàpp sa nit téye sa nit sécuriser sa nit mais dóore pour lan ah dóore pour la loolu ñuy jóor doomu jàmbur yi ñuy jóor magu jàmbur te ñuy dóor yaayu jàmbur yi pour la loolu arrêté leen loolu ndax ay cinq mille francs ay dix mille francs man yónnee nañ ma vidéo bi fu ne waaye sama ngéntali laa doon lijjanti comme que jàll na ci jàll jàmm nag lii dañ koy gérer dañ koy lijjanti nañ arrêté arrêté leen nit da ngay am valeur nit da ngay am dignité nit da ngay yaru nit da ngay baax koo fi dóor yaay jàmbur la koo fi dóor rakku jàmbur la koo fi dóor papay jàmbur la suñ dóoroon seen papa ak seen yaay wala seen i rakk du leen neex bàyyi leen ni ngeen di dóor arrêté leen man moom xaw ma kan waaye bis bu ma doxee ci mbedd wala ma ànd ak nit programme wala campagne ba ci ñoom ñuy dóor jour boobu xam naa lañ may tàggee ndax du ma ko nangu arrêté leen il faut arrêter réew mi réewu teraanga la du réewu fitna boo leen mënta gérer à l'amiable wala ngeen nekk ci jàmm ngeen bàyyi leen ñu dem ngeen dem loolu du tóore jaajëf